jërëjëf aouzu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokku jullit yi mbokku taalibe yi fi teew maa ngi jël nuyo bu sell di ko teg ci loxo suñu sëriñ sëriñ Mamor Mbacke Mourtala ak njabootu sëñ Touba bi fi teew yëpp di nuyoo président de la république jëmale ko ci xalif général des Mourides mun Muntaxa Mbàkke sëñ bi président de la république mi ngi ma fi yebal ci yéen yebal ma ci mbokki Sénégal mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi dajee fii tey di màggal bés bi nga xam ne dañ ko jagleel sëriñ Touba Xaadim Rasul muy le 8 juin fii ci itali bi may ñëw maa ngi ànd ak ci délégation bi ministre conseiller Talla Sylla ngeen dégg ko léegi mu barkeelu ci ay wolofam yu jëm ci sëñ bu mag bi ànd ak madame Aïda Sougou ñu koy wax Ndeye Fatou Sougou doon vice-présidente conseil économique social environnemental ànd ak excellence monsieur l'ambassadeur Pape Abdoulaye Seck mu jël fi kàddu yu am solo léegi naa ci dellusi ànd ak excellence monsieur le consul Lamine Diouf doon consul général u Sénégal fii ci Milan ànd ak wala boog fekk fi honorable député Mame Diarra Fam mi nekk assemblée nationale fekk fi honorable membre du conseil économique social et environnemental soxna Mati Mbow ak sëñ Bassirou Mbacké Diakhaté moom mi nga xam ne suñu sëriñ la te doon membre au conseil des collectivité territoriales sëriñ bi sama mbokku cekkeen bi doon jàng sànq xasida dafa tàmbalee xasida bu am solo إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالكي مضطرا sëñ tuba wax ne tubaab yi dina leen fekk seen dëkk wan leen ne moom de du kenn ku dul jaamu yàlla sunu boroom loolu nag yéen mbokk jullit yi mbokku taalibe yi loolu ngeen dëggal tey donc nañu sant yàlla bu baax bi ñu yàlla maye ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo dëggal kàddu sëñ tubaa yooyu ci dëkku nasaraan yi sëñ bi loolu am na solo ndaxte tubaab yi fi jiitu léegi wax nañ ko ku ñu jël yóbbu la bitim réew ak li ngeen xam yépp ci demum géej gi ak coono yi ci ne ak jafe-jafe yi ci ne sëñ bi dellu si jéggal ña ko ko defoon ni ko Faustino Gatta waxee sànq loolu jàngale la jàngale boo xam ne war nañ ci mën a sukkandiku ngir ni jamono ji doxee sëñ bi njàngale yi sëñ Touba dafa doon loo xam ne àdduna bi ñëpp soxla nañ ko ndaxte bu ñu gisee li fi xew wax nga ko tudd nga ko sànq li jëm ci wàllu mbas mi fi weesu wax nga ko démb ci waxtaan wi ne ñun jullit yi dañ ko war a jàppee ab avertissement li ci tegu nga xam ne bu mbas mi weesoo it mooy crise économique bii nga xam ne ku ne fa nga toog yaa ngi koy yëg ndaxte mën nañ jàpp ne 2020 ba léegi crise sanitaire lañ am maanaam mbas moo xam ne jëmm yi ak wérgu yaram yi lay laal waaye lii nag guerre la boo xamante ne bu bu yàggee poos yi lay laal li ñuy wax tawatu poos li wolof yi di wax tawatu poos tawatu poos nag mi ngi tàmbalee ci li nit ñi di jëfandikoo njëg yi dem ba jéggi dayoo ba réew yi ku ci am sa pepp nangootoo ko joxe fi na nii boo demee déew mu mel ni Inde nangootuñu seen ceeb dem fenn ndaxte nee nañ déwén xamuñu ndax mbay mi dana mel na mu war a mel. bokk na ci ñun ci xibaar yi ñuy jot dëkk bu mel ni France wala dëkk bu mel ni Italie njëgu diw gi wala njëgu essence bi yokk ku ci ne ci yéen xam naa ne war na ko yëg jamono jooju nag bu amee. réew yi nga xamante ne ñooy suñu yos yi dañu yaakaar ne ñoom ñoo gën a féete ginnaaw ci wàllu koom-koom jafe-jafe yi day gën a tar ci ñoom te nguur yi ku ci organisé wul képp koo xamante ne amoo ci pas-pas wala nga taxaw ci taxawaay bi ci war jamono ji dina la jàpp ba njëg yi dina yokk ba say population di ko yëg sëñ bi nag loolu président de la république mi ngi ciy liggéey la mu ci war a liggéey defe naa leeral naa ko démb ci lu toll ci lu ëpp 700 milliards yoo xamante ne maanaam weer bu jot juróom fukki milliards yoo xam ne dañ koy jël def ko ci koom-koom bi ngir njëgu essence njëgu courant njëgu euh, ñam yi ñuy jëfandikoo moo xam dëwlin la moo xam suukar la moo xam euh, ceeb la loolu nag su ma ko limee li ma ci jublu mooy wax leen rek jamono ji ni mu jafee nga xam ne ku ci ne war nga am taxawaay bi nga xam ne mooy aar sa njaboot aar sa réew sàmm li nga xamante ne mooy ëllëg ndaxte li tubaab di wax lendemain incertain lañu nekk loolu nag su ma dikkee fii gis mbokk taalibe yi démb rek defe naa sëñ fàllu Mbacke moo magoon ko woon wala sëñ Modou Mbow wan ma limu alxuraan yi ñu jàng wan ma limu xasida yi ñu jàng li ngeen fi jàng ci nuuru daare ni li ngeen fi jàng ci matlabul fawzé ni li ngeen fi jàng ci muqaddimatul xidma li ngeen fi jàng ci waxaana xaqan wala jaalibatul maraaxib wala lu mënti doon ngeen bañ ci fàtte seen réew waaye ngeen bañ ci fàtte àdduna bi ndaxte àdduna bi nekk na ci jafe-jafe loolu muy ñaan boo xam ne président mi ngi koy ñaan ngeen def ko leneen li ci des nag sëñ bi mooy jamono ji nim mel defe naa ne bi sëñ Touba di woote ñëpp dégg nañ ko wallahu yansuru nii wal xalqu tatbawu nii fil barri wal baxri za nafhin wala dararin nee na yàlla defal na ko mu doon xéwal boo xam ne moo xam ci géej gi la jaar wala ci suuf si la jaar dana doon njëriñ bu àndut ak benn lor ci nit ñi moo tax ñun li ñu war ci jamono ju yàqu ji nga xam ne boo xëyee ubbi sa téléphone li nga ci jot ci ay xibaar yoo xamante ne lu ci bëri du dëgg lu ci bëri liñ ci jublu mooy jax-jaxal xelu nit ñi liñ ci bëri luñ ci jublu mooy jaxase nit ñi jaxase sax ay mbokk yu bokk diine jaxase sax ay mbokk yu bokk tarixa loolu war nañ ci gën a farlu te niñ ciy farloo mooy topp li nga xamante ne mooy njàggale sëñ Touba mooy jar njaboot gi fegook ñoom ci valeur yi nga xamante ne moom la ñu diine jox wax ngeen ko sànq suñu mbokk italien yi nga xam ne dañ fi fekkanteeg ñoom ñu bàyyi xel ne sëñ bi biñ ko nee ndax da ngay jihaad dafa ne jihaadatul nafsi bil mi wal taqwa ci xam-xam ak ragal yàlla loolu nag ñun ñi nga xam ne ñooy njabootam buñ ko defee defe naa ne duñu jote kenn waaye tamit kenn du ñu yàpp te kenn du ñu tooñ loolu nag su ma koy wax dama bëgg mu wisaare ko ba nga xam ne day egg ba ci biir réseau sociaux yi ndaxte tey ku gis réseaux sociaux yi li ñuy wax nit ñi li ñuy sosal jàmbur yi ba di ko wax suñuy kilifa di ko wax suñuy kilifa diine jéggi na dayo te am na réew yoo xam ne xeetu comportement yooyu dafa dem ba andi réew yi di xeexoo seen biir askan yi di xeexoo seen biir waaso yi di xeexoo seen biir loolu nag ñun njabootu sëñ Touba war ñu ci bokk ndaxte ñun sëñ bi daf ñoo yar wax ñett mooy ragal yàlla di ko jaamu di liggéey ak di jëriñ suñu dëkk bu tedd bale muy Touba ak Sénégal loolu moo doon kàddu yi nga xam ne président de la république wax na ne bu ma ñëwee sëñ bi ma wax ko wax ko njaboot gi wax leen ne ñu ngi leen di bàyyi xel ambassadeur wax na leen léegi ne bi at mi di tàmbali président de la république da ko joxoon ndigal ne ko dégg na jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi dañ koy am ci seen i këyit ci traduction yi nga xamante ne dañ ko war a def ci ambassade yi muy jafe lool mu waxoon ko agrément boobu mu fexe ba am ko defe naa ne démb yàlla dogal na xam naa ak barke bés bi ba ñu jot euh, li nga xamante ne mooy këyit bi wane ne Sénégal adhéré na ci te am nañ yaakaar ne balaa yàgg dinañ jot li nga xam ne mooy tontu bi wane ne seeni i këyit léegi boo leen ko yoree dootoo leen soxla di jaar ci jafe-jafe yooyu yëpp sëñ bi ci seen ndigal it bëgg naa gërëm waa jamia bi muy président Modou Mbow ñu leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi remercier leen fi ñu jaar yëpp dégg nañ kilifa réew mi li ñu wax ndaxte boo nekkee ci réew am fa comportement bi war respecter loi réglement yi moo tax boo xewlee kilifa yi yëpp di fi jaar foo leen dem ñu dalal leen gërëm leen sant leen ci taxawaay bi ngeen am ak doxalin bi nga xam ne dëppoo na ak li ñu sëñ Touba jàngal sëñ bi wax nga it ne bëgg nga gouvernement bi bàyyi xel réew yi nga xam ne dañu am yitte am taxawaay ci sénégalais yi ndax ndaxte nguur dama tàmbali sax jàpp baat boobu nga wax nga ne nguur du pouvoir waaye responsabilité la nguur responsabilité la moo tax say ñoñ sa askan sa famille fépp foo dem ñu am toppatoo ci ñoom rek da ngay gën a am ñeental ci ñoom waaye da ngay gën a am respect ci ñoom donc Sénégal danañ gën a bàyyi xel suñu relation ak itali ndax dëgg-dëgg taxawaay bii ñu am ci yéen ak doxalin bii ñu am ci yéen euh, Seigneur Faustino Gatta dem na waaye ñu ngi koy gërëmaat di ko sant di ko wax ne jëfam ji mu def ñaar fukki at ñett ci ginnaaw Sénégal du ko fàtte te taxawaay bi ci am dinañ ko doxal sëñ bi ba ñu màndargaal loolu nga xam ne mooy ngërëm bi nga xam ne Sénégal ameel na ko ko jullit yi amel nañ ko ko waaye yoonu murit amel na ko ko sëñ Mamor loolu moo doon kàddu yi nga xam ne moom laa bëggoon yëkkati di gërëm di sant mbokk yëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf